li nga xam ne moom mooy euh, euh, parc Hann euh, parc Hann ñu bëri bu ñu waxee parc Hann rek seen xel mu ngi dem ci parc géologique bi mhm. parc Hann dafa am ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari anam anam bu njëkk bi mooy mala yi anam bu njëkk bi parc forestier moo fa am donc am na parc forestier am na parc animalier yi mhm. Euh, loolu bu amee euh, sama première visite comme demal làng ak parc bi ma ne balaa may dem feneen di xool bàyyil ma dem dugg ci biir parc bi pour xool euh, lan moo fa xew le premier constat mooy amul fenn fu ma gis en tout cas parc boo xam ne oto yi dañ koy jaabante non seulement visiteurs yi dañuy ñëw dugg ci biir parc bi mais dañuy traverser parc bi di jaar mu nekk. voir de dégagement voie de dégagement lañ doon utiliser par bi ni ñi di si jaar di ci génn di ci dugg. Hmm. première mesure le lendemain c'est d'interdire l'accès aux véhicules pour plusieurs raisons. xel nangu ko. Euh, raison bu njëkk bi mooy. Hmm. Euh, parc bi sénégalais yi koy visiter dañoo bëri surtout tout tànk yi. Hmm. Euh, boo fa demee par exemple le matin di nga gis ay njaganjaay yu jógee dans les régions. ay xale yu ànd ak seeni maître mmh. euh, ñëw di def ay visite di def ay euh, ay ay camping ci biir parc bi loolu nag àndul ak li nga xam ne moom moo fa xew première euh, première chose la deuxième chose mooy parc bi kenn waru ko bàyyi mu nekk passoire mu nekk parce que am na ñoo xam ne dañuy ñëw di tàggat seen yaram parc bi wax naa wax naa sànq il y a pas visiteurs ñi nga xam ne dañuy xool animaux yi mais il également ñi nga xam ne ils profitent ci li nga xam ne moom mooy euh, parc forestier bi ñu soy def ñu siy tàggat seen i seen yaram donc loolu moo tax ñu jël première mesure ñu ne parc bi amul benn oto bu dootu fu dugg bi ci biir ñu ngi nag euh, seet naka la ñuy fexee euh, bien sûr avec des des calèches parce que Euh, on ne peut pas interdire l'accès aux véhicules sans qu'on trouve des moyens yi permettre nit ñi par exemple ñi dugg ci bunt bi ba ci biir ñu am ay moyens yi leen di permettre ñu accès pour ceux qui ont des problèmes de mobilité moo tax ci fan yi ñëw néew dinañ fa def ay ay calèche ay wëtiir yoo xam ne nit ñi buñ ñëwee dinañ ci dugg ak seen i yi pour que ñu mën a dem euh, visiter parc mhm. am na nag loo xam ne euh, nit ñi ñu ngi koy véhiculer Euh, c'est important ñu conserver là-dessus mooy bi ma ñëwee dégg naa dans les réseaux sociaux gars yi di wax euh, animaux yi fa nekk dañoo xiif nangam ak nangam ak nangam ak nangam c'est pas vrai ngeen baal ci kàddu gi. mais état yi doy na dama lay wax dama wax mooy. état yi doy xam nga euh, booy yar booy booy yar mala dafa am ñaari façon yarin dafa am lu ñuy yare pour embouche xam ne dañ koy yafal. dafa am loo xam ne dañ koy yar pour yar on n'a pas besoin d'engraisser les animaux dañ leen di jox seen ration yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo fa nekk xam nañ li leen doy ci wàllu ration euh, ci wàllu euh, lekk journalier moom lañ leen di jox deuxièmement euh, dañu jàpp ni pour améliorer l'attraction il faut repeupler le parc on travaille aujourd'hui sur le repeuplement du park par bien sûr euh, euh, à travers parc bi nga xam ne mu ngi Bandia dañuy jël ay animaux foofu di leen indi pour repeupler parc bi deuxièmement il faut que ñu am c'est vrai. privé bi laa xalaat euh, non non naa si naa si ñëw naa si ñëw parce que euh, il faut aussi ñu def benn clinique euh, vétérinaire boo xam ne mala yi comme nu ñuy feebaree ñu dem ci. Euh, clinique di faju pour que ñu mun leen defar suivi euh, bu bu baax euh, en tout cas ñun am nañu yéene bu baax a baax pour changer li nga xam ne mooy nekkinu park bi mm-hmm. non seulement ci wàllu attraction mais également ci wàllu yorin mm-hmm. il faut c'est vrai il faut améliorer la propreté On est en train de travailler dessus avec euh, le directeur des eaux et forêts, euh, chasse et conservation des euh, ki nga xam ne moom sols, qui On est en train de travailler et Inch'Allah, dinañu fexe ba sénégalais yi wala ñi nekk Dakar wala ñu nekk partout dans les régions du Sénégal mu nekk benn lieu d'attraction bi nga xam ne dañuy namm ñëw euh, visiter parc bi mm-hmm. beneen mbir mi mooy la gestion euh, par le privé xam nga euh, tey boo seetee euh, réserve de bañ Bandia du état bi moo ko yoree à 100 pour cent on a mis des baa ñoom ñoo ko ñoom ñoo yore réserve de Bandia y a une convention bi nga xam ne signé nañ ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy le ministère de l'environnement c'est vrai c'est des pistes peut-être qu'il ne faut pas écarter mais dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy kilifa pour seet est-ce que mun nañu dénk gestion bi par des privés su fekkente ne euh, mun nañu améliorer euh, yorinu parc bi mais je pense que euh, piste bi ñu jël nii dinañ ci gis bunt parce que aujourd'hui tout le monde est sensibilisé ci wàllu Euh, amélioration yi nga xam ne war nañ fa def euh, en partenariat d'ailleurs avec euh, je fais pas de la publicité avec Sonatel ñu ngi war a def li nga xam ne moom la ñuy tuddee musée du parc pour que lépp lu fa xewoon ci at yi nga xam ne weesu na passé na tenu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ak ak animaux yi fa nekkoon et cetera et yooyu yëpp boo ñëwee visiter nga mun a dugg ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, musée bi. Mhm. pour nga mun ko visiter. donc ñu ngi liggéey aujourd'hui ci naka la ñuy fexe ba améliorer euh, l'attractivité parc bi. voilà loolu. Mm. ñu ngi ciy liggéey vous avez parfaitement raison. Mm. ay piste la yoo xam ne ubbeeku na. te incha allah dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne war voilà avant euh, dernière question environnement bay jàll ci politique am na defe naa ku nekk ci euh, ligne bi depuis cinq mm-hmm. euh, mën nañu ko jël moom nee na dafa tenir à ce que mu bokk ci émission bi ndax ki ñu invité alors man xawma lu tax mu bëgg a intervenir est-ce que yëfi environnement daf ko soxal parce que porteur de voix dañu koy jël muy Pape Diouf waykat Pape Diouf bu génération consciente alors Pape Diouf ñu ngi lay nuyu Euh, artistes yoo xamante ni yenn question yi daf leen di soxal parce que depuis sànq on parle euh, d'information sensibilisation ak sanction di ñetti ponk yoo xamante ni ay nit yu mel ni moom war nañ ci mën a euh, jàppale askan wi ñun ay woy la ñuy gën a mën a dégg donc baax na bu dee question environnement buñ ci amee boykat buñ ci mën a woyal ñu man koo mën a dégg ñu ngi lay nuyu merci ci woote bi Pape juuf waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam salaam. maa di leen ziare di nuyu euh, waa Sénégal ak ñu nekk ci diaspora bi seetaan émission QG yëpp maa ngi leen di ziar di leen mm-hmm. baalu ak te di leen baal àq ci weer wu sell wi. Mm-hmm. di ziare aussi communauté mouride bi nga xamante ni tey ñu ngi feete suñu bisu laylatul xadr mm-hmm. di ñaan yàlla nangul nu suñu koor jégal na suñuy bàkkaar amiin amiin di barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag kilifa koo xam ne suma xarit la suma mag la suma référence la suma kilifa la mhm. muy monsieur le ministre Abdou Karim Sall nga xamante ni j'ai l'habitude di ko woowee le patron de la banlieue mhm. Pape di la nuyu sama ñaari rakk yi toog foofu mhm. muy sama ñaari rakk muy Pape Cheikh Diallo ak Pape Djibril Fall di sumay ñaari rakk bopp mu bëgg leen lool di nuyu aussi suma frère Chérif Mamadou Ndiaye sama doomu bopp Coromba Ndiaye ñaatam bijou ak ñi toog ci plateau bi yëpp te mënuma lim seen tournée maa ngi leen di nuyu yéen ñu lay fay. mais Pape tey li tax ma gën a kontaan pour dugg ci émission bi mooy. Mhm. Euh, ki nga invité ndax olof dafa ne bu ñu nee diw baax na ñu ne na fekk mbokk yaa ko wax. dëgg la muy Abdou Karim Sall. l'homme social ndax balaa may wax ci ci environnement kay ndax environnement c'est vrai que àdduna bi yëpp la soxal ndax vraiment ku wax environnement ne àdduna kon je pense que ni tey ki nga invité balaa may dugg ci ci point boobu damay dugg ci jikko ndax bu ñu nee nit ne jikko Abdou Karim man dama ko jàpp à ndax ku ne xam ne ne waajur mooy léppi àdduna mhm. ku nekk sa waajur nga am mhm. keroog bi suma waajur génnee àdduna biñ koy rob moo njëkk ci levée du corps bi man nii di doom doomu Baye Cheikh Diouf sax Abdou Karim moo fa njëkk simmi yére DGM mhm. ma fekk ko ci morgue bi ñu àndandoo dugg ci morgue bi mu tiim sama papa génne kaamil alxuraan mu ko jàngal yaasin pendant trente minutes. macha allah kon kii maanaam man à vie ku ma la. Mhm. mu nekk aussi nitu social. Abdou Karim xeebul kenn. Mhm. dans lii bi mu dëkk rawatina mbaaw Kër Massar jàpp Pikine ndax tey mënoon na am ndombal tànk fàtte ay dëkkandoo. Mhm. Abdou boo ko woowee téléphone dina la wuyu su la mënul wuyu bu guddee lu mu guddi guddi dina la rappeler. Mm-hmm. boo ko yónnee message dina la rappeler. Mm-hmm. Abdou Karim day sol dàllam di def porte à porte di dem ci population bi di leen nemmeeku. ni ñuy jox dépense kenn mënu ko compter. Mm-hmm. li tax ma wax lii nag mooy pap yàlla dama nattoo ma nekk ambassadeur banlieue. te loolu tey maanaam man lu ma war la. mais mission boobu daf ma cay jàppale ak ñeneen ñu mel ni man mhm. te loolu muy def ci social loxo ndajooram yëgalu ko loxo càmmoñam mhm. ku feebar ku feebar bu la boo ko seetee wala mu dégg ko cëf na te yàlla tax mu mhm. ngi def social ci artistes mu ngi def social ci cadre yi mi ngi def social ci lutteurs yi ñu ngi def social ci sportif yi. Mhm. ñu ngi def social ci ñëpp ci banlieue bi. Mhm. kon tey buñ ko invité man may nit koo xam ne ku ko naw laa ma mu marqué ma. Mhm. sama wareef mooy ma dugg ci plateau bi. dëgg la pour seereel ko loolu. dëgg la beneen bi ci topp nag. Euh, ñun dañuy remercier le président Macky Sall. ci confiance bi mu am ci nitu banlieue bi jëloon ko jël lu toll ni ARTP. nga xamante ni poste bu am solo la. Mhm. mu dénk ko ko mu liggéey fa liggéey bu mucc ayib. Mhm. ba tey président kontaan ci liggéeyam jëlaat ko jox ko poste environnement. Mhm. ndax Pape. bu njëkk ma dañ daan wax naan ay malaria. mais tey àdduna bi chaque année boo xoolee sommet G g bu amee. Euh, dañuy wax lu bari ci ci ci ci ci ci ci environnement. Mhm. et que je pense que bi ñu nekkee xale ñun di jàng. Mhm. dañu daan jàngal tey garab nañ leen di sàmm gàncax gi ndax ku nekk xam na ne garab kat boo ko jëmbatee maanaam yow nit ki da lay jox oxygène di récupérer gaz carbonique yow yow en tant nit ki ngay noyyi oxygène. génne gaz carbonique di ko jox garab gi kon sàmm gàncax dafa am solo sàmm aussi mala yi dafa am solo mhm. et je pense que ni tey maa ngi leen dégg seen waxtaan sànq ngeen naan mhm. sanction mais xalaat naa ni ci sama xel mu gàtt nit di nga defar ba ba yàq mhm. mais sama xalaatu bopp pour man sensibilisation lañu ñu toll te sensibilisation weesuwul communication ñu ne gàncax gi dañ ko war a sàmm lan la ñuy jural mala yi dañ ko war a sàmm lan la ñuy jural mhm. naam bi mu ñëwee yàggul mais tey fu mel ni tey parc de Hann nee na ah mala yi kat ay mala lañ waaye dañ leen war a jox ci respecté leen comme mhm. benn oto waratul dugg ci biir parc bi mhm. kon loolu je pense que ni lu ama ama am solo la ñun nag en tant que porteur de voix en tant que artiste en tant que ñoo xamante ni tey dañuy gis ay euh, message yoo xamante ni dañ ko war di véhiculer. Mhm. bu compliqué ci askan wi ñun ñu mën ko way mu neex ba mën a dugg ci xolu doomu aadama yi doomu aadama yi comprendre ko le plus rapidement possible. Mhm. loolu mooy sunu wareef. important et que mhm. dama ko doon sax bëgg a defal surprise ndax bi ñu ko falee ba léegi seet seeguma ko pour ne ko ndokkule. macha allah mais. tant que doomu banlieue. Mhm. monsieur le ministre force bi ñu la jox xamal ne doo ci wéet ndax am nga ay rak am nga ay xarit am nga ay nawle kon suñu mission ñu nit suñu wàll ci nar li mhm. mooy dinañu liggéey ak yow. Mhm. lépp loo xamante ni war nañ ko wax wala ñu woy ko muy communication ngir jàppale la. ci sensibilisation boobu. ba Sénégal xam gàncax ak mala. ban njariñ lay am ci réew. Mhm. dinañ ko woy. dinañ ko wax. ba képp ku war ku ko war a dégg nag dina ko dégg. merci di la remercier bu baax di remercier nag le président Macky Sall qui est mon ami. Mhm. ma fekk ak moom te nëbbu ma ci dara ndax olof dafa ne ragal péete day xañ a wërsëg. très bien. ci confiance bi mu am ci yow. Mhm. teg la ci poste bu am doole boobu kon monsieur le ministre yàlla na yàlla oyofal say yoon. très bien ça. di nuyu ñëpp nag. Pape Cheikh. ana bébé taat na xëdd bi. non bébé moom fi mu nii moom xam nga na nga ko xamee woon rek. ne ko ne ko maa ngi ñëw tey fa laay xëddee. <laughs> moom daal da koy tegle di ko tegle di ko tegle ba ma ko ne nag doy na nag fi mu nii. macha allah macha allah. macha allah non mu ngi lay xaar mi ngi lay xaar jeex na Corom Mari Ndiaye du la fa bàyyi. jeex na kon kon ñu ngi lay gërëm merci Pape kontaan nañu. kontaan nañu kontaan nañu monsieur le ministre donc lii defe naa am na solo des artistes qui qui qui yu lay gunge. ci sa combat bi euh, je suis euh, vraiment touché. Mhm. Euh, ci témoignage. Mhm. bi Pape def. Mhm. vraiment Pape maa ngi lay sant. maa ngi lay remercier bu baax a baax. lii mooy générosité. Euh, Pape ñëpp xam nañ ne icône la. Mm-hmm. rawatina ci banlieue bi. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne identité remarquable la. Mm-hmm. kooku euh, su waxee ne tey dina si jàpp ci li nga xam ne moom la son excellence le président de la république teg sunu loxo dinañ si jàppale yaakaar naa ne am nañu renfort bu ama am am solo. Pape maa ngi lay remercier bu baax fi nga xam ne euh, am na fu mu tàmbale mais amul fu mu yem euh, yàlla na la yàlla fayal boppam amiin je suis très touché mhm. par ce message mhm. euh, bi nga xam ne moom nga délivré léegi mhm. en tout cas jàppal nii man ak yow yàlla moo ñu boole. macha allah euh, yal nañu yàlla jàppale. yal na la yàlla jàppale. yal na la yàlla may. gudd fan. ba projet yi nga am yëpp. Mm-hmm. yàlla jàppale la moo bëgg a réussir ko. amiin maa sant maa ngi sant banlieue bi yëpp. maa ngi sant mhm. département de Pikine. Mhm. à travers mon ami. Euh, euh, et frère euh, mhm. Pape Diouf. voilà ñu ngi koy gërëm bu baax moom déjà mu ngi waaj tëgg guddi gu mag ñu profité ci joxaale leen information boobu le 13 juillet ci salle boo xamante ni bokk na ci salle yi gën a mag biir New York d' comme ñoom nañu ko tuddee big star yi ñoo fay tëgg donc Pape Diouf dina fa tëgg ak génération consciente mu fas yéene sargal jigéenu diaspora diaspora bi euh, fas yéene euh, sargal jigéenu Amérique loolu nag le 13 juillet euh, lay am incha allah ci dëkk bu ñu naan New York ak suñu xarit Birane Sarr Birane Sarr nag ku ne xam na taxawaayam ci Pape Diouf ku ne xam na taxawaayam ci bëgg a yëkkati culture sénégalaise bi donc moom ñu ngi koy gërëm bu baax waa New African Production foofu ci New York grand Birane Sarr merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal donc Pape Diouf dina dem fee xam ne ni moo di New York le juillet te dina ci ak télévision Futur Média